mbokk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 nag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 mbir ba mu leer ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa léegi bu ñu jógee ci loolu dama bëgg nga defal ma quelques analyses ci combat yi nga xam te jot na fee taxaw dama koy njëkkee ci Tapha booy euh, Boy Niang noo gisee boobu combat. dama la boole tënkal lépp fi benn benn nga parce que déjà. mais en tant que technicien mu ñu toog deux ans mbër gisoo ko activité am bëre gisoo entraînement am gisoo aspect psychologique am gisoo aspect moral am gisoo aspect alimentation am gisoo entraînement nga bëgg ko teg man je fais pas partie de ces entraîneurs ou bien de ces consultants yi joxe ay provisions yoo xam te ne jotagul mais bu fekkente nag ñoom ñëpp ne nii yaa ngi soo ruqali entraîné kenn gisu leen yow gisoo leen mais gisuma leen lu ma ci waxit waxi supporter laay wax wala wax dégg ki ma wax pour mu mën a juger xam ne kii mi ngi ci état état c'est en te voyant à la préparation t'écouter t'observer analyser pour mën a wax exactement yow sa mission sa but lan la mais par rapport à cette situation faire l'exécution li nga xam ne moom moo leen war pour nga wax ko ne Balla Gaye euh, Bombardier kii moo ëpp doole kii moo kii mais loolu wax sa doole wax la neex la kii moo euh, yi pourcentage yi wax la neex la parce que gisoo ci kenn ko xam ne nii tey mi ngi entraîné comme il faut et régulièrement au but avant de combat parce que ba tey des na xam nga kañ ngay xamoo diggante tey ak ñaata mois ñaata jour ngay bëri donc ban préparation nga fiy def donc loo fiy defet maintien la rek ñoom ñi def ñëpp ñuy def nii maintien lañ mais le travail exactement qu'il faut personne d'entre eux ne l'a pas commencé pour aller vers un combat. mais am na si ñaar ñoo xamante ni moom ñoo ngi koy def te ñoo ngi wane seen état de forme muy ki nga xamante ni mooy Modou ak Ama Baldé même bu ñu waxul euh, des fois nga gis photo des fois gis vidéo est-ce que yooyu ngi ci jot. non de temps en temps mais ça l'image l'image souvent ça peut image bu yàgg parce que les sites dañuy génn image ma image bu yàgg du image image image vive. boo xam te ni kii da tey tey tey la ko def ñu génne ko léegi léegi léegi ma ne nag imaam bu yàgg parce que nit ki bëgg na génne bëgg génne rek gis un Modou Lo bien musclé bien taillé gis un Ama Baldé avec un sac remonter les dunes nga nga teg ko ci site ne mi ngi entraîné tu te trompes non certainement aussi moi je te dis ah je pas tomber dans ce parce que ñu bari laaj dañ ma ko mais mënuma ci leeral dara parce que yàlla def na ne euh, combat yu bëri fi am te muy nekk grand combat soit def ko 2S soit def na ko Sen TV soit def naa ko TFM euh, ak Malal Junior soit soit soit soit donc grand combat bi am yëpp pratiquement toog naa ci plateau dëkkati ko waxtaan ci donc je ne pas tomber dans ce piège ou bien dafay erreur ñun omes nee nangam omes ñii ne nii je préfère daal bu combat yi taxee ba ñu tey la ñu commencé man dinaa commencé def samay graphique samay problème parce que moi je travaille sur ça di nga fekk fii may liggéey. damay am sama ku si nekk mbër bu si nekk am nga am na am naa sa sa xam naa loo ma ne xam naa sa point fort xam na sa point faible xam naa sa sa sa sa faiblesse yow xam naa ko donc ku si nekk muy muy garde haute beeg garde basse beeg li ci am yëpp mën naa toog di ko tënkal nit benn par benn mais nag fi ne loo ci waxit day wax loolu neex ou bien ngay génne secret secret secret lutteur alors que en réalité ñun si mission. mooy c'est c'est c'est c'est d'éduquer c'est d'enseigner c'est donner des orientations comme ça nit ki jël ci ay njàngat mën a seet ba xam ni nga wax am na la ko si jëriñ mu jël ko ak xam ne jëriñ jëriñu ko mu ay manquement la mu yokk ko ñun loolu moo suñu devoir mais mënuñu ñëw di wax ne mbër bi lii mooy faiblesse am te leeraloo ko donc ti le mets di des doutes donc l'aspect psychologique ça compte laissons le travailler calmement et euh, sereinement Euh, jusqu'à ce que le CNG ouvre les portes ñu xam ne nag ku si nekk vraiment c'est ouvert la di nga mën dem jël entraînement yi sidi les vannes mais yéen ñëpp amul kenn ku gis entraînement Modou Lo nii au frais au vif amul parce que ñoom ñëpp ku si nekk am nga discrétion de travail am nga un staff bu lay bu lay permettre tey ngay nëbbatu te ku dem États-Unis def ay vidéo mu envoyé ko les vidéos que tu vois sur les images c'est différent que la personne debout devant toi donc yooyu mënoo ji mën da ngay sujet da ngay wax rek mais je je ne pense pas que loolu nekk na loo xam ne tey ñun en tant que technicien mën nañ ci war a mën a wax ba askan wi di di ñu dégg daal.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 leer ak foo mën di nekk foo mën di féete jokkool ak moom ci téléphone bi rek sa aajo fa